حمدا لمنسل وداي ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل الدنا يدفع به عن البلاء ثم على من حيث مس سامرت يبرأ بلا رد وفاز بالخلاء محمد طبيبنا الحكيم تقبل منا وهمهمانا وتجاوز عنا وانزلا يا ربنا خير النهم مكانا ما نخاف من شر النهم

شكرا مكان الكفر وفي جميع المسلمين هاجلا ثم فيهم خوفا وحزنا عاجلا bisimilah rahmaani rahim bisimilah barki borom Touba ah, ñu ngi santaat borom Touba bu wér di ñaanal sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér gu wér le di ziarat sëriñ Afi bu sama mit di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér gu wér le ah, ñu ngi santaat ah, ci tawfeex gi nga xam ne am nañ ko tey diiru bi nga xamante nii nag euh, ñëw nañ fii ci jumaa ji di ànd ak euh, waa daara bi mu xaddamatu xidma euh, di liggéey fii ci jumaa ji wax dëgg yàlla gis nañ ci ak yokkute dañ ciy sant bu baax a baax a baax a baax ndax mbooleem waa mu ci sëñ Mouhamadou Mbacke ma fa nekk saa su nekk daf ñuy soññ ci jumaa ji ak di wax ne lépp lu baax nañ nañ ko waajal te di ko jëmee fii waaye tamit di di déglu waa daara ji lu ñu jox ñu nekk ci fu ñu yemloo ñu yem fa euh, daara ji nag bis bi ñu bi nga xam ne jaxasoo ak ñoom boobu ba léegi euh, dañoo gën a yëkk suñu bopp ci liggéey Cheikhul Khadim bi ci ci ci teggin yi ak ci yar gi ak ci wan ñu wan ñu wan ñu koy liggéeyee Cheikhul Khadim lii nga xam ne nag euh, waajal nañ ko andi ko fii ci jumaa ji dafa nekk ne rek ñun amuñu lenn amuñu benn yitte bu dul liggéey bu jëm ci jumaa ji képp suñu lépp ci jumaa ji la jëm amuñu bis bu ñuy def amuñu leneen lu ñuy waajal ak lu ñu xalaat ak lu ñu dajale lu ñu am rek fii lañ ko jëmale incha allah ci kàttanu yàlla ba tax na kon moo waraloon ñu xalaatoon euh, lii di fuur bi indi ko euh, bu ko defee mm, muy benn fuur bu mag ak benn bu ndaw euh, di ñaan nag sëñ Afi Bousso nga ñaanal ñu ndax ñu ngi bëgg tamit machine boo xam ne ci wàllu ndox tamit ñu ngi koy waajal incha allah fas yéene ko andi fii tamit ndax loolu rek mooy suñu yitte bi ñu déggee sëñ Mouhamadou Mountakha Mbacké wax ne ginnaaw dogob yàlla lu sotti yitte moo ko sottil boobu ba léegi suñu yitte yëpp ñu ngi ko def fii ci euh, jumaa ji jaxasoo bi nga xam ne nag jaxasoo nañ ko ñun waa mu xadduma xidma bu Louga jaxasoo bi nga xam ne jaxasoo nañ ko daayira mu xadduma xidma bi nga xam ne du ñaar benn lañu biñ ko bi nga ko defee ba léegi rek dañoo gën a xam nu ñuy liggéeyee Cheikhul xaddim waaye dañoo gën a xamaat liggéey bi ba tax na rek lu ñu xalaat rek euh, day daal di jub euh, ba ci kilifa yi nga xam ne ku ci nekk ci suñu fàllu mbàkk mi saa su nekk euh, ci loolu rek lay lay lay sax di ñu ko def waaw ci loolu rek lay sax di ñu ko def nañu lu baax moom fu ngeen ko fekk rek mën ngeen cee tabbi ndax lu baax moom jàpp naa ne eh, jarul laaj ndigal ba tax na kon euh, sant nañu baax dañoo bëgg lool <laughs> ndax jotaay bii ñu jotaay yow dañ cee bëgg lool waaw dañ cee bëgg lool euh, mboo ñi ma àndal nii ci suba lañ ñëw ñoo ànd ba ci soxna si nga xam ne moom moo moo liggéey liggéey bii Euh, moom bi muy def formation bi xamul na sax bis dana jot ñu ñu daje fii di kii ba tax na saa su ne dañuy wax ne kenn ku nekk ci ñun lu mu xam ci lu baax na ko jànge waaw ñu ngi tubaat bu baax nag di jégalu bisimilah. rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara bu baax sëñ Xaadim ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbokki daayira Muxaddamatul Xidma Tuubaa Louga yëpp ci turu Sëriñ Afee di leen yeesalaat nag suñuy cant bu baax ci yéen ak suñuy ngërëm bu baax ci liggéey bu am solo bi nga xam ne liggéey la te ngeen ko sëriñ bi tey jii ci muy machine bi nga xam ne indi ngeen ko fi tey jii muy machine boo xam ne mooy lakk yi nga xam ne moom la seen laxan mi doon jëfandikoo léegi ak bokkam yi nga xam ne ñoom la bokkal muy loo xam ne lu yitteel la ndax at mu ne daanañ ci sonn lool di ci ñàkk xaalis bu bari di ko wuti ci biti dëgg la sax bokki taalibe yu bari ñu ngi koy andi waaye teewul liñ daan indi lépp daanañ ci jëndi lu mat 1000 pièces par bés wala lu ko ëpp teewul nag mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi ko daan indi it ñu ngi leen di séntu ba léegi waaye lañ daan jëndi nag moom léegi noppal ngeen ñu ji ndax danañ ko fa machine bii bii ngeen fi andi jàpp nañ ne dana ko mën a defar dana mën a defar lu toll noonu ci bis bi kon nag euh, ñoo ngi leen ciy sant bu baax di leen gërëm te di leen ñaanal bu baax a baax gis nañ seen Pastef gis nañ seen taxawaay gis nañ seen yéene ci liggéey bi waxtu wu nekk yéen ngi xool lu koy jëmee kanam ngeen di ko def waxtu wu nekk itam saa bu daayira bi yittewoo lu mu xat xat xat ak lu mu jege jege jege jege da dagg seen yitte yéen ñëpp bàyyi la ngeen nekkoon lépp ñëw jàpp ci liggéey bi. lii nag di loo xam ne baax na fi lool ci surtout nag ci ñaari xew-xew yi nga xam ne xew-xew la yu daayira bi di taxaw benn bi di koor gi nga xam ne taxawaay bu yàgg lay doon weeru yàlla lay doon bi ci des di màggal nga xam ne lu gàtt gàtt dana dem fukki fan ak juróom. beneen bi ci des di gàmm gi ñetti yooyu yëpp bu ci nekk dañ ko fiy soxla mu nekk fi yitte lool yoo xam ne yàgg nañ ko yittewoo lool te yooyu yëpp itam lii dañ ko daan wuti di ko jëggaani kon tey suñ demee ba am lu koy defar fii ci barab bi dana doon ñaari tawféex jëmmi li ñuy defar fi koy defaree ak barkeelu la lépp lu ñu defaree rek day gën luñ defare defaree feneen fu dul moom waaye itam jàppandal gi muy jàppandal itam liñ wuti gi ñu ko daan wuti ak coono yi ñu daan sonn ci di ko commandé ak yooyu yëpp. day daal di wàññi ko bu baax a baax a baax kon mel ne def ngeen ci jàppandal gu rëy a rëy dafa mel ne tey séer ji nga xam ne moo bokk ci wutur moom li jëfe nga ko fii yow ak ñi nga àndal ñëpp ci liggéey bi kon nag tey siir yàlla na la ko sëñ sëñ Tuubaa delloo mbirum sëñ Tuubaa nag waxoon naa ko fii barki démb rek day mel ne euh, li ñuy wax balu teng si boobu moo waxoon barki démb ci yi moom laay waxaat loo sànni boo ko sànnee nu mu dal rek nii lay dellusiwaatee ci yow kon ngeen yëg ne jàppandal gi ngeen jàppandal liggéey bi ci barab bi it noonu ci la Serigne Touba di jaare jàppanal seen mbir yéen ñëpp jàppandal it suñuy mbir ñun ñëpp ñu ngi ñaan ngeen taas nu ci xéewal yooyu ba jàppandal googu ñun ñëpp ñu amaale ko ci ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax a baax a baax di rafetlu taxawaay yu baax di yóbbante ay cant ci bokk yi ngeen nekkal foofee di wax itam yi nga xam ne ñoo leen di jàppale ci liggéey bi ne lépp luñ mas a seen loxo ngir mu jëm si ci liggéey bi rek agsi na ci barab biñ ko soxlaa kon nag ñu ngi leen koy gën a dénkaat bu baax a baax a baax a baax di leen wax ne it ñoo fi nekkal daayira bi nekkal fi jumaa ji itam lépp lu waaye teg seen loxo lu mu bëgg mu jëm si ci jumaa ji incha allahu dana egsi ci jumaa ji nam ko tege seen loxo kon nag ñu ngi soññu bokki taalibe yëpp ñu bàyyi leen xel surtout ñu féete luga ak seen bokk yi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen dëkk yëpp ñu bàyyi leen xel leen jàppale bu baax a baax a baax ndax li jëme liggéey bi kanam rek ci la ñuy yëngu te luñ ci jot rek dana agsi ni mu war a agsee asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh fariñ fariñ fariñ sëñ Fall nag nee na fariñ bi koy liggéey <laughs> moom it ñu ngi ñu ngi ci ñu ngi ciy soññee bu baax a baax a baax waaw kon nag Cheikh Gawane Ka yaa say bokk ak ñi mel ne yow euh, fariñ Bangkok yow dégg naa yaa indi fariñ bi ci mburu mburu mi ñuy defaree mburu ci Tuubaa gépp samaam nag soxla na fariñ fii ci ci jumaa ji kon nag yow ak say bokk ak ñi lay jàppale ci fariñ ñëpp fariñ Bangkok kon seen ci seen loxo jërë ngeen jëf. sëñ bi ñu leen di siyaara bu baax di di jiital sëriñ Afia. Euh, sànq biñ teewloo liggéey bi suñu xel daal sori lool ci suñ tubaral ni ko suñu borom di fayee muy lu yéeme loo xam ne soo ko xalaatee rek dalay def ab jël léegi laa koy wax suñ jili bi ñu demee Mayomba ak lambar ni di gëstu tànk sëriñ bi ba ak fekk fi sëriñ bi ñaari camp yi nga xam ne sampoon na fa bantam yooyu te tubaab yi ñëw buddi ko ne ko da bëgg a yàq suñu soldaar yi fii julli xewu fi ba suñu borom fayee ko jumaa ji tey ñu xool ne waxtu dog bu masaa jot bu nekkee foofu moom sëriñ bi ay xobi garab lay rocc ngir dugal ko ci gémmiñam tucc tuccal ko ba dara jàll ngir mu yëg ne dog na koor tey fii ci jumaam ji nga xam ne moom la ko suñu borom fayee ñu gis ne bi ñu xoolee juróom benn téeméeri junni ak juróom-ñaar ci ay mburu ak nangam soo ko xaymaa mu lay jox boo ko xaajee ci digg bi ci nit ku nekk mu lay jox téeméeri junni nit ak juróom fukk ak ñeent yoo xam ne jumaa ji dañ fi doge ci ay nit tey jii waa mu xadimatul xidma Louga indi fuur buñ monte ci biir jumaa ji ñu defar ay gato yoo xam ne façon yu nekk ci façon neexaay gu nekk ak sëñ bi dam doon doge foofu tey ak mbooloo mi doge fii ci jumaa ji di dog dogin woo xam ne lu ne lay àndal sëriñ bi bët bu set mu ñuy wan ne sëriñ Touba sunu borom ni mu koy fayee ak ni mu gàccaale ay noonam loola moo ma yéem ci jataay bi moo tax ñu koy seere loolu moom kum yéemul ma xam ne des ngaa jàngat doxinu sëriñ bi des ngaa jàngat sëriñ bi ni ko sunu borom di fayee salaamaaleykum wa rahmatullah bët na ko waxtu jotee mu dugal ci baaraamam sëpp ji ba waxtu dellusiwaat ngir wisaal dafa xaraam gabo gabo ab xaal la wër bët na ko ba waxtu jotee da ci dugal baaraamam sam ko sam wane na dog na ngir wisaal dafa xaraam maam jokkale koor dafa xaram waaw nee na keroog boñ demee ba ca korige nee na booba ab ab nen amu ko muy jiitu ba muy julli amul amul waaye nee mu wiri xolom gis ne. kore ga ko jiitu ca ca ca mu kore ko Tuubaa gii mbooloo mi bari lool li fi dee ci ay nag li fi dee ci ay gileem kenn njëkkante am daraje laal ko ko der bi te tey amul sax moomu waaye ne ko ci apostol mooy bi biir fee xolam gis na ne a daq ko gii waaw waaw man loolu rek moo sant sant yàlla waaw waaw.